boo ñaa <laughs> billaay yaa ñuy fot bu ree nag mais dëgg laa la wax rek suñu baxu bakkan nga toog. man damaa teg ci nu fonde bu tàng jër. di jox ku nekk kaasam. Alburak Production présente le combat de l'été. Attention, Boy Niang 2, Lac de Guerre 2, le juillet, Arène nationale de Dakar, drapeau Aliou Sall, maire de Guédiawaye. Le combat sera diffusé en mode pay Madame Neyler, amul toog sa kër jàpp télé di seetaan de déedéet. Restez connectés sur seneaffiche.com.